22e nuit tey suñu naafile 10 jours dafay nekk ñaari rakka ci benn sëlmal rakka bu nekk dinañ jàng fatiha benn yoon suñu noppee ñu daal di ci teg suratul anla benn yoon mooy sabihisma rabbikal anla suñu noppee ñu daal di ci teg suratul naasi moom itam ñetti yoon mooy qul a'uuzu bi rabbin naas mbokk ñu ne naafile bii nag ku ko def suñu borom mën na la tabaxal lu toll ci 70 cité foofu ca àjjana mooy juróom-ñaar fukki cité foofu ca àjjana waaye tamit ci biir cité yooyu mën nga ci fekk ay étages yoo xam ni dafay fees dell ak or ak i xaalis waaye tamit ba tey ci biir étages yooyu mën nga ci chaque étage mën nga ci fekk lu toll ci junniy néeg junniy néeg yoo xamante ne si néeg bu ca nekk dina fees dell ak yére yoo xam ni dafay rafet lool macha allah yére yoo xam ne rafetaay ba mën nañ ko nattale comme rafetaayu jant loolu moo nekkoon seen naafila di jours tey wa ma zalika alallahi bi aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.